nga gis na ma yàlla baal ci borom ñaari tur laa ko ma tuddee comportement yooyu xaw a bari ci dëkk bi ngay porteur de voix lan nga ciy wax. waaw kon rek réew rek loolu moom dafa nekk mbir moo xamante ne yàgg na si sunu réew. mais mm. du loo xamante ne luñ doon fesal la. Mm-hmm. mais léegi boo seetee dañoo xaw a am fit ci ay côté yu bëri mm-hmm. te loolu yaakaar naa réew mi am na si seetlu. Mm-hmm. am nañ ci benn seetlu buñ ci war a def. kilifa yi ñu leen di informer à temps parce que sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh mi fi nekkoon tey di wax radiallahu anhu mhm. tey li doon dooleem mooy dañ ko doon informer à temps mhm. di ko wax réalité yi am dëggantaan ba mu ci daan mën di wax mhm. te loolu tey moo war fépp ndax loolu affaire la boo xamante ne pétrole yi ñuy coow ci réew mi di ko sàkku di wax ne na leer pétrole lu mu mën a defar borom ñaari tour yooyu mën nañ ko yàq ci ay minutes borom ñaari tour day indi géej day indi géej guy deborde ci biir réew mën na indi ngelaw mbugalu yàlla bu daaneel ay immeuble day indi feebaru sida day lépp loo xalaat choléra Ebola yi xew yépp góor jigéen da koy indi ci réew ndax yàlla wattaqu fitnatan la wax laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa hmm. waalamu anna allaha shadidul iqab nee na nañu moytu fitna ndax fitna du yem ci bopp borom li ñuy def noonu ñii di ko xool di reetaan ñii di xool lu garaaw la bis bu yàlla di duma raafal la koy def kon loo xamante ne la gaa dañu dañ cee war a fas seen kanam mu nekk mu bañ a nekk affaire bu ñuy banaliser wala affaire bu ñuy ñàkkal fayda hmm. parce que danger public la lu garaaw la la te mi ngi dox mi ngi avancé. ñenn ñi ñu ngi leen di nax. di leen ci dugal ñenn ñi alalu àdduna mi ngi tax ñu ciy dugg. ñu ngi def pexe ba jéem ko dugal si suñu askan. ba ñoom ñu am fi doole. waaw ñu ngi koy def képp ku leen ci mën a jàppale ñu ngi koy jéem a topp pour mu jàppale leen ci. loo xamante ne dañ ko war a xeex sans kaf. sans reetaan. Mhm. ngay porteur de voix ah, nit ñi di la bàyyi xel loolu ban message nga ci lancé euh, état ba ban état yan engagement la ci war a jël. waaw état xam nga état ni ñuy wax rek état moom ñun sax ñoo ko population moo gën a nekk sax état à l'aise pour régler loolu parce que état dafa am ay partenariat ak étranger yi tey président bu xaw a dund yenn niveau intellectuel rek li xew ci àdduna yëpp boo seetee ñoom am nañu liberté fépp ci àdduna. Mhm. moo tax instant yi pays yi nga xamante ne dañ koy bañ cible la ci ñoom pour ñu installer ko fa. waaw moo tax nag suñu état yi sax dañuy am problème boobu parce que day am ay financement yoo xamante ne pour ñu nangu la koo jox sax pour il faut ñooñu nga may leen nga libre ñu libre wala déet mais état bi war nañ ci jël ay mesures parce que alal bu la nit mënti jox pour dig la pour ñooñu am liberté wala dara bis bu yàlla meree ci loolu wala dara. dina la ko yàqal lu ëpp loolu wala lu ne toll loolu danger bu garaaw la boo xamante ne yàlla si boppam yàlla mi ngi ñuy yilif sax bàkkaar la boo xamante ne du ko sax tudd dafa mel ni ku ko seexlu ba mu koy tudd ci alxuraan sax dafa ne yéen nit ñi yéen góor ñi ndax sañ ngeen. jigéen ñi ma leen wutal. ngeen di leen fi bàyyi di dem seen moroomu góor yàlla sax moom affaire bi moom ci boppam da koo tiital est-ce que nit sañ na ko. Mm-hmm. kon mbir la bu ñaaw boo xamante ne nit ñee ngi ciy teg seen bët di dem bay seetaan ay vidéo bi. Mm-hmm. te loolu yëpp ay xeetu influence la pour nit di ko xool xelam mën ci dem di xalaat ne lii mën na ne waaw te loolu nag laanatullaahi alayhi ñu ngi ñaan yàlla képp ku ànd ak ñoom ak képp ku leen di dooleel ak fépp fu ñu jaaree yàlla yàlla boole toroxal leen wane leen dàq leen ci suñu réew waaw